commencé ci entraînement bi. waaw entraînement yi dinaa def lu mu mën. yoon entraîné yoon dinaa daw dinaa lekk dem duun dem yooyu yëpp. waaw zuuru fan géej. fajar. waaw fajar du ma ko yeewu. fajar du ma ko yeewu. ok étape par étape rek laa bëgg dem. signature bu yegsee li ñuy xaar ci bouche yëpp nañ ko am ambiance yuuxu gëdd daw fëgg. loolu mun naa ko assurer man dinaa fecc fecc ni dinaa wax wax bi. Hmm. dinaa. ambiance ba sénégalais yëpp bég loolu dama koy assuré bu mu mat sikk kon nañ avancé te loolu maa ciy gagné far force waaw kon nañ avancé mais leneen li mu mën a gën a ah. gagné ah waaw li mu mën a gën a gagné étape par étape la bëgg ñu dem hmm. bëgg ñu tëb benn étape étape par étape la bëgg ñu dem euh, bu ñu weesoo euh, signature yeeg ambiance beeg yooyu ko géré dafa mel ni foofu la <laughs> yaakaar naa ni xaaral xaaral amateur yëpp wér léegi sa lekk ak sa naan di nga xool li ngay lekk ak li ngay naan dinaa xool lu may lekk dinaa xool lu may naan dinaa xool samay gàllaaj bu wér a wér a wér kenn def dara non non non maa ngi ñëw yooyu étape bi yooyu yëpp naa ci ñëw léegi euh, di nga bàyyi sa hygiène de vie xel euh, heure bi ngay yeewu heure bi ngay tëdd fi ngay dem say dox ak yooyu yëpp di ko bàyyi xel loolu pour l'instant nii rek maa ci ah ok man sama man du dox dox bu bari kon baax na ah du ma du ma du ma def yu bari du ma duganteeg ñëpp damay moytu bari quoi. baax na donc pas yi nga xam ni ñooy ñaan tamit eh, yaakaar nañ li ci war yëpp di ko ci def di nga xel pas yi. waaw loolu am naa ñu boo xam ni damay animer lamb ji. léegi am yow ambianceur bi tey ji bu ñu la newoon. waa ji mooy dugg ci lamb ji. Euh, tey la jour lamb ji nga war ko bàkk tey yow. Euh, Vieux ban bàkk nga koy bàkk yow. rambax. taj taa. waaw eh. taj eh. taa. non non non ñii bàkk yi ñuy indi. waaw bàkk bi kii indi nii man weesu naa ko ci làmb. waaw man léegi sama làmb. dafa am nu may ñëwee. waaw américain ndax dama gëj ci làmb. ñu fay ma xaalis bu bari te sénégalais yi man lañ safo xam nga nag euh, dina la wax benn affaire nag yaa ngi fulaal lamb ji nag sénégalais sa wax mu ngi nekk yaa ngi fulaal lamb sénégalais yi dañu ma mm-hmm. wóolu dañu mm-hmm. ma gëm mm-hmm. ba pare bëgg ma respect te ji dama ci gëj te làmb ji tey boo ci jëlee Balla Gaye ñu ngi ci sa mënoo ma ci géndee man booy génn sa kër <coughs> sama kër booy fay génn dinaa ko yëngal buntu kër gi sangoo samay gàllaaj yëngal supporter togg ay añ koñ bi fees dell ndax noonu laa mës a mel ma yéeg sama 4x4 bu rafet oto yi dar ma booy yor scooter yi dar ma ma dem ci géew ba taxaw oh ah, ci buntu bi waaw ci buntu bi yëngal fooy duggee da ngay yéeg ci kaw esel euh, esel laay jël ah, ma tegtal lay xaar esel non jaruma koy wax yaa may feeñal samay affaire quoi tegtal esel <laughs> ah, yàq suñu programme nag de dama lay yaa yëngal ba dugg ci biir. Eh, abaa bëgg wax la ñu suñu. si yaa ngi dégg abaa man maay làmb. Ah, làmb moo ma nam. sa entrée ñu ngi ci entrée bi fan ngay jaar. 47 sabar laay indi 47. ok ok ok entrée entrée bi waroo nangu ma koy wax fii sax. maay jégalu maay jégalu mais léegi boo duggee ba ci làmb ji. sa cumukaay ñi lay bàkkal yow sax ku lay bàkkal yow. sama man ku may bàkkal. Mhm. man ñetti. ñett tambour masoor yu ndaanaan laa yëg. <laughs> waaw ci benn lamb. Baye Demba day ñëw. Ndiir waaw Baye Demba Ndiir day ñëw. <laughs> Abdou xaritam lañ Ngom day ñëw. damay xaritam lañ damay indi orchestre Pape Diouf mu tege. waaw waaw bu waa yow. yaa ngi dégg. mais abaa na lamb lu ci manqué woon dama koy indi. ok ñu ngi ci bàkk bi de. waaw. waaw mhm. ah, bis naa mën na dafa am ñett ñu mu war a tëggal. nga war a dindi pare pare. Fada non non bu fekkee maa ngi wax ak yow yàlla naa di yow man waxumaa ak yow de kii laa waxal kii kii bëri laay waxal. parce kii bëri man ragalu ma lay wax. léegi léegi Bousse. damay dëggal. waaw Bousse. waaw léegi yaa ci bàkk bi. waaw léegi ban bàkk nga xalaat ni tey moo yëngal stade bi benn rek nga may ñu rek ñu xool non man bu may dugg si waaw gars yi dafa am lu ñu may dugalee. Mhm. ma takkee samay sengoor ba talal sama ñaari loxo. Mhm. kenn gàcca rambal kee ku dagdal kee. Mhm. bu sedda koy yëngal kee ndumul kat ku dagdal kee. bu sedda koy yëngal kee ndumul kat ku dagdal kee. bu se dikk na géej dikkati na moom géej laamu ji weetoon na géej tey mu neex géej. ku jibi jibi jibi jibi jabara ba jabata kin géej. non ak cung la de non dangay waa cung dafay cung ok ok. damay man damay cung damay cool. ok bu yàq sama kii nga ne. ku jug jug jug dama jaga jaga daa kin cool bi ne. waaw ah. kin kin kii caa ba daa kin kin kii ndeer bi ne xoolal. daa dara rocc jar kii. ok ok ok loolu mooy sa bàkku. mais yow le temps ngay bàkku ba pare ba Alaaji Mbay di bàkku yow. Euh, xew ci lan la lay fekkee yow. xew mi da ngay wër stade bi wala. Alaaji Mbay buy <laughs> non alaaji may buy bàkku. bi ngeen yàq sax na. parce que sëriñ Bamba ndam xaaral rek xaaral rek xaaral rek. mbir daan na pare rek. xaaral rek Fata xaaral rek. ñu ci biir lamb di a jot loolu. doo xaar ñu bëre xaaral ñaan nañ ñibbi kenn bëreegul alaaji mbay mooy bàkk fi ñu toll nii. yow euh, instant bi keneen lay fekk. alaaji mbay buy bàkk. waaw damay dem teg sama chaise. waaw ah. yaa ngi dégg. sama não toog noppalu. waaw ndax énergie bi may génnee day bari. waaw instant yële ngeen naan naan naan te mënumaa toog 8 ans mënuma toog 8 ans bëreewu ma fournir lu toll ok ok. léegi boo paree foofu paa yi dañ lay tiim ñii di sang ñii di sotti ak yooyu yëpp boobu maa ngi toog wéeru sama cumukaay uuf ko waaw li muy indi ñu xëpp ma ko Pape Diouf indi ñu indi ñu i gàllaaj ñu sang ma ko ma toog sangoo ko buuse arbitre woote na mu ngi ci digg géew bi El Hadj Mbaye mu ngi ci digg géew bi buuse yow yaa ngi dox di dem ci géew bi léegi nag euh, waxee lool loolu lool loolu waaw waaw cinq minutes yu njëkk yi. jeex na tàkk amul bu non non non cinq minutes yu njëkk yi arbitre leen làmb. non non kenn waxagul cinq minutes arbitre baa ñu làmb. waaw arbitre baa ñu làmb ma yëkkati sama loxo yi rek <laughs> eh, bi sifflé na bi sifflé buuse ak Alaaji Mbay ci biir géew bi. waaw arbitre bi sifflé na buuse Alaaji Mbay ci biir bi. jeex première cinq minutes waaw cinq minutes rek la. première cinq minutes amul deuxième bu ci làmb ji jeexul. changé foofu boo ñëwee Sénégal alaaji may keroog ba koy gis ci géej leer na. géej gi kenn duggatu fa heure boobu. Eh.